sant yàlla gi ñu ngi ciy jiital ñaan gi ñu ko ñaanoon daaw fekkee séentu weeru koor mu may nu ko yàlla nañu yàlla may ñu àgg ci ak jàmm te jooxe ko nim ñu ko digale euh, ci àdduna bi yépp nag fii xol yi dunde fépp kenn talatu dara lu dul di waxtaane gaawuk jamono ndax weeru koor wi ñuy séentu te nëgëni si daaw rek yàggu dara ñu nekkoon fi ak ñoo xam ne soxlawoon nañ leen fi waaye yàlla moo dogal ne ñoom duñu ko fekk ñun ñu it li ñu koy jege jege yàlla nu yàlla may nu fekke ko te weesu ko ay ati at ñu mën cee jànge dox jamono di dox dox jamonoy dox nag euh, mag ñi daanañu ko jàngale ci ku toog ci bangub saxaar bang bi mu toog jógewut fi mu nekk waaye li mu dugg mooy dem bang boobu mu toog moo ko yóbbu fa mu jëm ndax li mu dugg mooy dem muy romb ay dëkk di romb ay garab kon bokk weeru koor wi jubee nii mu jubeeti te fekkoon nu fi daaw benn sant yàlla war na ca waaye it nafaraat suñu dund jaadu na ca muy gan koo xam ne nag fii xoli jullit yi dund fépp ña ngi ko fay séentu di ko tatagal di ko waajal ndax lan <coughs> gan gu nekk ak namu mu ak waajtaayam bokk yi bu fekkee kuy julli ji daf koy waajal ci boo waree laal ndox mu laal ndox boo waree jàpp mu jàpp xel ma cay nekk ak la ndox may laaj ci waajtaay ak barab ba muy toog di ko def ak na mu koy defee julli gaa ko tax a jóg kon julli am na waajtaay moo ne it ñi nga xam ne dañuy aji makka it ñoom danañ waajal aj gi waajtaay wu gën a yàgg fuuf wi kuy julli di waajal julli gi donte ci biir aj julli daf daa am waaye téewul dañ koy waajal waajtaayu boppam ci seetlu seenu yaram seet seenu denc ba xam lañu dencoon ma nga fa ba tey ndax dana ko man walla du ko man ak ya cay topp topp ca ba ba leen yàlla di yóbbu di leen delloo si si jàmm moo ne it ku nara jëfe ponk bu lislaam bi ñuy wax azaka it faw waajal ko ci liggéey moo tax seen yetti waajtaay yooyu koor yeesu leen moom itam ci waajtaay wuñ ko war a waajal rawatina xolub jullit boo xam ne ma ngay dund ndax weer woo xam ne bu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañuy ubbi bunti aljanna yi fëlëngal ubbi fëlëngal boo ko déggee mooy bunt boo xam ne daa dellu nii rek waaye ngelaw sax mën na ko ubbi lu gone néew néew doole mën koo ubbi waaye noonu la ñuy ubbee bunti a rab maanaam daal loolu boo ko déggee mooy lu yóbbu àjjana nit yomb na lool ci weeru koor waaye lu yóbbu nit sawara it jafe na lool yàlla jafeel na ko ndax fam la joxañ boo ko boo ko dem sawar day jafe ci yow rax ca dolli yonent bi ne dañuy tënk seytaane jatan ko lada ko ba nga xam ne yeewaat ko ba nga xam ne du mën a jóge fam taxaw yàq du ko yomb ni mu ko yombee bu weeru bu dul weeru koor kon bokk paso bu mag la di li ñuy wax itam traite ndax bokk yi traite ci gannaaw tuuti bi mbay mi soog a ñor ku ca fas dem ku ne xam na nam koy waajale ca lewwa wa lew mooy suuf sam yi nar a bay ak jiwu mi tànn ak suuf sam ko yaakaare ngir dox jëm ci lañ ci traite rek bu peesee daan ñépp kon bokk weeru koor li ci nekk ci luy defar ruuxuk nit bam tàmm jaamu yàlla bam neex ci moom ba tax koo mën a fàggu yiw bu koy dugal aljanna bu ëllëgee di ko tasale ak yërmande suñu borom a ngërëmam weer la woo xam ne jar na waajal lool te bokk yi weeru koor bu ñëwee ba jàll te niñ koy waajale mooy balañ ca àgg ci jamono yi ñu toll bu ñëwee ba àgg ba jàll ku tomb bu ragal yàlla nekkut ci moom na xam ne mënatu koo am fenn waaye day waajal ab jullit it ci lu ne mu mën koo ñàkk mën a ñàkk lu ne mën a ñàkk ba mën a ñàkka lekk ak ñàkk naan te kenn nekku fa kudul yow yàlla kese waaye des na yëg ci koor it luy wane ne ndekete yoo nit ñi yi ñuy tànnal seen bopp rek moo leen di tàggale waaye leen yàlla ta yàlla tànnal moom bu te ku nekk tënkoo ci ngeen daal di xamee yéen ñëpp ay bokk ngeen yéen a bëgg lu ngeen yéen a bokk lu ngeen di bëgg yéen a bokk lu bañ. ci loo ci koor itam des na ci yëge ne ku ñëw ne la tey jii ndékkiwuma te yaakaaruma ko fenn danga xam ndékk ñàkk ndékki li muy def ci nit waaye ku ne añ lu ma aña it te nga amoon ko démb tey jii. nga nar ko diñe ku ñëw ne la añu ma yit da xam ñàkk añ li muy def ci nit moo ne ku ne reeru yit soo demee ba ndogu asweli dina tàppit yàlla nu ci yàlla musal da xam réeru ma la ca nekk lu mu doon da nga xam dal ab xiif ku ne dama xiif daal da nga bokk ak moom yëg xiif boobee muy yëg moo ne koor it la ci tàlli mën a joxe waaye ci tënk daal koor moom li ciy juddoo ci ay jikko day mel ne mooy ndox mu neexum jikko yi ndox mu neex ci ni muy dundale aw yaram daa mel noonu la koor di tàggate nit ci ragal yàlla ba tax mu nangoo jëfe ndigali suñu borom not bakkanam pas-pasam gën a dëgër moo tax su agsee fii ñu agsi bokk na ci ñi ñu koy waajale soo naan koor koor koor sax dana am ñoo xam ne seen fii di day dem mu mel ne bu leen fi koor gi fekkee moom musiba am ak ñëw wuuteeg mag ñi nga xam ne bu koor gi masaan jub te borom Tuubaa bokk ci weer wi saa bu masan tollu fii loo ko wax mu ne tëluñu dara de ndax gan gi ñuy waaj gan gi kum mooy koor waaye bu nekkee ci biir koor gi loo ko laaj mu faj ko loo ko wax mu faj waaye bu koor gi bëgg a jeexit dana ko métti métti woo xam ne loo ko wax ñoo te luñu dara ndax gan gi bëgg a tàggoo te mënuñu koo téye kon bokk ku munta mel ni moom it war nga bëgg lam doon bëgg loolu moom kenn mënu koo bañ kenn mënut a bañ a bë sañ bëgg kenn mun kenn mënut a bañal nit muy bëgg la baax ñi daan bëgg waaye nag lu ci bari dañ ko doon wut tase càkk ndimbalul suñu borom moo tax bu koor gi jub ku amee woon bor te amul lenn ngànt boobee koor gi jeexee ak léegi na xam ne bor wërta am rak dañ naan bor du am rak waaye mi ngi aju ki nga wóolu di ko lebal rek waaye daa wërta am rak kon bokk ku ci amewoon ay fan na xam ne koor gaa ngi ñëw benn mu fay ca bor ñaareel ba it mu tàggatuwaale ca ba xam ne ba koor gi ñëwee dana woyof ci moom am na nag jàmbar yoo xam ne moom ba rajab teroo lañ umoon ñoom doonte waru waaye nag dañuy bëgg màng fépp fu joxoñu suñu borom nekk ñu màng ko màng mooy yor yóbbu lépp ngoor lépp yóbbu kon boog bu weeru koor di jub li ñuy jëkk xalaat mooy tàggataat suñu diggante ak suñu pas-pas ba xam ma ngay dox walla déet loolu nit mën na koo xam ci tànn ci weeru li des ci weer weeku si néew ay fan yoo xam ne daf koy woor rek te yàlla tax donte waru ko waaye woor te yàlla tax te waru la it nit mën na cee amee ci ab yool lu ëpp foofu li muy amee ci bi ko yàlla te gi nga xam ne sañ bañ la bokk yi am na ñoo xam ne bu fekkoonte ne dem nañ ci kër goo xam ne kenn waru fa mën nañoo bañ a woor donte duñ leen yamale ak ñi nga xam ne duñu ko def waaye téewul daal diw ñoom woor nañ képp moo leen tax di woor waaye suñ duggee seen néeg mën nañoo jëfandiku génnaat ndànk te kenn du ko xam waaye nag kenn mënut a nax kenn euh, lu waay def suñu borom mi ngi koy bind ci foo xam ne fii bu tuub jibut bis bu koy jàng ñëpp ay dégg loolu nag mbokk yi léegi lañ koy waajal kon ku nar a jëm ci koor bi te amoon bor na fay waaye ku amut borit mën naa tàggatu balaa koor gee ñëw woor ci ay fan lum néew néew te yeesalaat pas-pas jaare ko ci tuub te fas yéene koñ ba mu dëkk waroom xam-xam ya fa dëkk mu dem waxtaan ak ñoom ci koor lu ko ci umb tara woon ko daaw ñu leeralal ko ko euh, warugar yi moom ñëpp ko xam waaye yi nga xam ne ay sunna la ci tudd wala ay mandóob wala ay ngëneel ak yiñ ci sib ak yi koy yàq loolu ay sew sew la yoo xam ne faw jullit bi xam ko te gën naa yomb mën naa dem rek ca koñ ba mu dëkk ñi ko gën a jege tey waroomi xam-xam lu mu ci bëgg xam wala mu rawoon ko daaw wala mu daloon ko ca mu leer leerlu ko ba mu leer ko nañ yàlla nañu ko yàlla fekkeloo te ñu weesu ko ak jàmm te yàlla nañu ci yàlla dajale ak ngërëmam te musuñu seytaane ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin